صلاة الله ثم السلام Gracias. organam bu mel ni bu kilifa yi taxawee da ngay taxaw stop pele yi su dee ba commencé nga commencé waaye sëriñ bi bu nekk programme ngay jël pour rafetut dama ñu Wow. He <laughs>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 assalaamu aleykum waaleykum wa rahmatullah As, as, Ajay. Thank you.

mbokk yi imam nañu ngi leen di fàttalin liñ daan laajal sëriñ daara bi ngeen andi addiya bi ku kenn laaj dara du ko yóbbu te ngeen génnee addiya sëriñ daara bi indi ko imam ne alhamdulillah ñu ngi yàlla ñu ngi nuyu sëriñ bi al xalifa Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass di nuyu mboolem mbokk yi fi teew yëpp di nuyu mboolem jullit ñi yi ci biir Sénégal ak yi ci biti Sénégal ci weer wu tedd wii muy weeri koor yàlla may nañu ñu fekkee xaat ko yàlla nañu dimbale bañ nangu ko ci anam bu mu bañ ko ay at yu bëree bëree bëri xalifa bi itam ñu ngi koy ñaanal yàlla yal ko fi yàlla yàggal yaara bi yal ko fi yàlla yàggal ci xanama bu wér yaara bi yàggal ko fi ak man bés yëmb yi nekk ci kanamam ñëpp ma tey ci loxoom mu ko ci kanamam yàlla mën na loolu yal ko ko yàlla defal yaara te may ñu ñun ñu fekkee loolu yaa rek gannaaw ndokkeel gi ak nuyoo ak ñaan yi li def rek mooy ñu xamal ni ñu ne weeri koor dugg na muy weeri yërmande di weeri alxuraan nga xam ci moom la yàlla wàcce alxuraan biiralal nañu tamit ne weer yi yërmande la bàyyi waat na ci xutba li nga xam ne moom la def ci weeri koor ne yàlla moo ko def muy fakk ñeexal ñi ragal yàlla moo ko def itam muy weeri barke ñeexal ñi gëm yàlla moo ko def itam muy tolowukaay ñeel ñuy jaamu yàlla moo ko def itam muy soppe jëm ci xole ñi nga xam ne xam nañu yàlla ñeent yooyu yëpp weeri koor lamboo na ko nga xam ne benn bu ci jullit lamboo ñu jàppee ko jullit bi gën ñeent yooyu yëpp nag daje ci weeri koor kon li mu laaj mooy takkaay ba bokk ci melo yooyu waaye jublu ci xumbal yal nañu ci yàlla boole ñu ñëpp yaram yi yal nañu yàlla mën loo kon xam ne moo ko jëramloo ci yooyu yëpp ñu mën ci weer bi yëpp ñu mën koo def yaara bi te luñ ci jëf rek yal nañu ko nangul tey la woon fanweeri fan suba la ñuy commencé wax yu yonent bi rek nag moom lañ jëfandikoo ndax yonent bi dafa wax ne sallallahu alayhi wa sallam or su ngeen ko gisee toog leen itam su ngeen ko gisee gis bi mooy nga gis ko wala ñu gisal la ko ñaar ñu maandu gis ko wala mbooloo moo xam ne duñ dajee ci seen gis ko mu ne suñu lii sa lay jaww ji ba mën a leen koo gis ngeen konte ba mu mot fanweeri fan ngeen oor bul ca dog ba li ngeen dog moom lañ def lii tey gisuñ ko démb ci Sénégal lépp gisuñ ko ci li ko warit ñu jàpp tey muy fanweer ñu ay ne oor dalee ci bësëb suba bi ba ca guddi irka yàlla yàlla dafa ñu toog yoon yi ñëpp yaru ji te ñu nangu ko ci anam boobu ci jàmm ak wér ak mën ak tal yàlla yokk suñu saa suñu maanaam aar ñu aaral ñu it aaral ñu dëkk bii dëkk dëkk ko ci anam yi nga xam ne rek moom la bàyyi bëgg te moom la gërëm itam tey yaakaar nañ ne mooy xam yal na yàlla def loolu yaa rabbi ci barke moom Baye radiyallahu anhu ci barke Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ci barke yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi imam ne ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi lay ñaanal yàlla it yàlla may la wér yàlla mën loola lépp loo xëy war koo def rek yal na la ko yàlla mën loo yaaram nga yàgg ko fi lool itam ci barke ñooñu mu tudd ci barke alxuraan ci barke weer wu tedd wii ñuy dugg yal na yàlla def loolu yaaram koor gi bu ñuy xatt wala ngay lekk comme ndox jot war nga taxaw. nga xam ne kuy xatt wala ngay lekk ba waxtu woowu mooy cinq heures bu tegalee ñaar fukki minute. bala ñoo doon fajar. su fekkee ne dog bi la. su fekkee ne mooy sept heures. mooy sept heures. moom itam bu tegalee naa dox. يكون يجينا للباقي كيف الباقي لا النافلة كل الباقي لا النافلة tey dañu naan onze heures bu tegal fanweeri minute mooy bis bu njëkk bi. tey dañ ne woon onze heures bu tegalee fanweeri minute. fanweeri minute mooy bés bu njëkk bi. waaye bis yi ci tegu. waaye bés yi ci tegu yëpp. onze heures zéro. onze heures zéro minute. doy na ca. ñu julli gee naafila. yal na ñu yàlla defal toog yal nañu yàlla nangul yaara bi. nangul ñu farata yi nangul ñu naafila yi. lépp lu ci nit dundalee yi itam. yal na ko yàlla gërëm ne yal na ko nangu. yonent bi wax na ne. weer la woo xam ne dañ ciy dollil ak jullit wërsëgam. yal nañu bokk ci ñi muy dollil. ndax loolu rek mooy dal xel. yooyu gëm yonent bi tudd leen ci nga bokk. mooy tegtale ne ci jur yooyu gëm yonent bi tudd leen ci nga bokk. sallallahu alayhi wa sallam yal nañu ci yàlla boole yar bi ci barke Baay radiyallahu anhu. salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf. doon laaj nañ ñëw. بسم الله الرحمن الرحيم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 la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci turi Mawlana Khalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass ñu ngi nuyu mbooleem mbokk yi teew ndokkeel jàpp ci turi sëriñ bi waaye di ndokkeel sëriñ bi ci boppam di ndokkeel imaam di ndokkeel mbooleem waa xadra bi waaye ñu ngi ndokkeel ci waa Sénégal yëpp ci weeru koor bi nga xam ne ci liñ dugg topp ndigal rek la waaye li ñu war a wax lépp imaam wax na ko ak ci weeru koor bi waaye dañuy ci weer wi nga xam ne moom lañ dugg weer bu barke yàlla tabaraka wa taala wax ne yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum asiyaamu kama kutiba ala alladina min bi nga xam ne moo tax yàlla sant yi or weer koor mooy àgg ci ragal yàlla tabaaraka wa taala weer bu barke woo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne ida daxala chahru ramadana futixat abwaabu jannati wa gulliqat abwaabu naari wa suffidat shayaatin bu weer koor juddoo duggee dinañ ubbi buntu àjjana yi tëj buntu safara yi waaye teew tim seytaane yi beneen riwaaya mu ne maradatu cheytaan ci riwaayatu Tirmidi nga xam ne wax na ne guddi bu njëkk ci weeru koor yàlla dafay tëj mbooleem buntu safara yi ubbi buntu àjjana yi gannaaw bu ñu tënkee cheytaan yi nga xam ne ñooy ñu yi waaye aji xoote dafay oote waxtu wu nekk ci buntu weer woowu di wax ne yaa yal xayri aqbil keneen ki di oote di wax ne yaa baa ngi sharri adbir wala aqsar aji oote dafay oote bu weer woowu teroo di wax ne yow ki nga xam ne yaay sàkku xiw jublu sil yow ki nga xam ne tim yaay sàkku xay gàtt gàttañ lul te guddi googu guddi gu nekk nee na walillaahi ataqaau min annaari wa dalika kullu laylati yàlla am na ñu muy goreel ci safara ci weer waaye loolu ci guddi bu nekk lay am ci weer kon ci buntab loolu ñu ngi wax ci turi sëriñ bi di ndokkeel mbooleem taalibe ak mën a jugee di ndokkeel ñi nga xam ne ñu ngi jugee ci amaakina shitta ñëw fii pour ànd ak ñun dundal bés yooyu nga xam ne dañ ko daan dundal ànd ak Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu pour jaar jaaraat ci ay jeexitam yi nga xam ne lépp dañuy àggalee ci jeexu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xassirul kalima wa nuhanniu ikwanana al arab alladina xadaru maana walladina ataadu an yaxduru fi hadihi layali almubarakati layali shahri ramadan shahri alquran shahri illahi tabaraka wa taala shahrun fihi leylatun xayrun min alfi shahrin يترسم منهج مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه في هذا الشهر لنتبع آثاره التي تؤدي بنا إلى متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعانقة جمال الحضرة الإلهية نجتمع في هذه الليالي المباركة ونتدارس فيما بيننا كتاب الله تبارك وتعالى ونقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتمسكوا بآداب الشيخ رضي الله عنه الذي ما حاد عن أن ينهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سار خير الناس سرت وراءه وإن حل يوما فالمسير بعيد وعلى هذا نشكر جميع الحاضرين ونهنئ جميع الإخوان المسلمين في بقاع الأرض من شتى المشرق من مشارق الأرض ومغاربها نهنئ جميع المسلمين في هذا الشهر المبارك ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأداء صوم هذا الشهر المبارك وقيام لياليه إيمانا واحتسابا لله تبارك وتعالى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل من الجميع ويوفقنا لما يحب ويرضى ويداوي بمنه قلوبنا المرضى وكل عام وانتم بخير السلام عليكم ورحمه الله taala wa barakaatu ñu ngi dellu di ndokkeel sëriñ bi di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi kanam mbooloo mi ñu ngi métti lu tim xibaar yi nga xam ne rajo yi wala réseaux sociaux yi dem nañ di ko jàllalante ci loo xam ne nii amul benn ëkk ñu ngi métti loolu di wax ne lu mel noonu ñi ngi wax ne waxtu bu amatee dañ ko faj ndax am na ay taaliba yoo xam ne ba mbir mi amee jël nañ seen matukaay ne dañ koy faj ci doole waaye ñun ñoo leen wan ne ci réew yi droit lañ nekk wan leen ne ñun ay républicain lañ duñ jaar may ci yoon waaye lu tax toon ak loolu dañ ko fajee ñu gën a métti ñu ko fajee noonu waaye nag ñu leen di wax ne bu bind ci dara ci kër gi lu may loo xam ne nii dañ cey jokkoo luñ ci war a jokkoo ndax fen fen wu aju ci xale sax daganut rawatina fen woo xam ne nii dafa aju ci koo xam ne addina yëpp dañoo aju ci moom ndax yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma samia doy na nit ki fen mu nekk nettali lépp loo xam ne dégg na ko yéen ngi dégg ay dëgg yoo xam ne mu ngi am dégg ay xaqaayat yoo xam ne mu ngi am jugee ci pays bi tawaxu leen ci dara waaye jël ay fen jël ay duut yoo xam ne nii ay noon ñoo ko sos seeni eene la ñuy wane waaye seen kaw lay dellu waaye ñu ngi ñaan yàlla yàlla dimbale ñu ñun ñëpp man mën a beesalaat suñu kóllëre beesalaat suñu gëm yàlla tuub dellu ci yàlla ndax ñu ngi jublu ci weer wi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wax na ne njëlbeenam yërmaande la diggam ah, mbaxam te yàlla la mu jëm la ci safara yal yàlla may képp kenn ci ñun way juum yi ci way jaar yi yoon yëpp yàlla may leen ñu mën a màng loolu di ñaanal sëriñ bi yàlla yàggal fi dëgëral ko ay yeneen yi nga xam ne ay euh, sembam yi nga xam ne yëpp ay sëmbi Mawlana Cheikh Ibrahima ci yàlla boole ci ñi xam ne nii ñooy jàpp ci liggéey boobu jàppale ko ci liggéey boobu nga xam ne gëm nañ ne ku ko def bàyyi nga liggéeyal nga bàyyi ku ko liggéeyal yàlla ak yonent bi nga liggéeyal salaamaaleykum wa rahmatulah. macha allah comme dégg ci àdduna bi nga xam ne na ko na bi ne na ko nekk jàng Faatiha benn yoon يكسر بفاضل ñuy tàmbali sa frontière ay kilifa yi génn

da Baye ñu teewoon si àndoon ak kilifa yu mag yooyu. Thank you. alhamdulilah rabil alamin loolu la ñu àndoon naafila tey bi di premier naafila bi bés bu njëkk si naafila si Ramadan kon àndoon ak yéen si Barham Universel TV dégg ngeen ko li waxandoo lépp di ay kàddu yu am solo yu xam maanaam yoo xam ne jëriñ fexe yi nga xam ne gannaaw julli gi al imam cheikh Tidiane Seydi Ali Cissé yëkkati na ko wax ko muy ay kàddu yoo xam ne ay kàddu yoo xam solo la ay kàddu yoo xam njëriñ la ay kàddu yu taalibe war a jëfandikoo la waaye gannaaw loolu noonu bu buloo leen ne kàddu xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mahi eh, ibnu Cheikh eh, ibnu Seydi Ali Cissé moo yor li nga xam ne mooy kàddu këy bi yor li nga xam ne mooy kàddu xalifa bi moom it yëkkati na wax si ay wax yu am solo ba nga xam ne tamit euh, tontuwaale na ñi nga xam ne tey ñoo bindoon li nga xam ne amul si faydu bi di ko yëkkati di ko teg si euh, xalifa bi waaye loolu yëpp yàlla nekk xay këpp seen kaw waaye sëriñ bi dëgg-dëgg al xalifa ñu ngi koy ñaanal gudd fan goo xam ne asalaamaaleykum ngeen àndoon ak Barham Universel Media TV incha allah ngeen xaar ñu suba incha allah dinañ leen indil tafsir Quran avec Cheikh Mahi euh, Ibrahim Niass الوفاء صلاة الله ثم السلام فطرها